wàllu ku ci nekk ci ñaari coalition yi yaa ngi fëgg sëb dënn di tëgal say wagg di bàkku na yaa gañe watey député yi vox populi nañu ginnaaw waa Benno Bokk Yaakaar waaye yeewi askan wi ñoom it def nañu ab conférence de presse démb ci ngoon fa la ñu xamle ne ñoo gàddu ndam li ñoo am majorité ci assemblée nationale di ci fal bokk ci ñoom bokki ci ñë fa yëkkati ay kàddu di xamle ne bi ñu defee seeni calcul ba nuppi li ñu trouvé moo di ci téeméeri député lay doon mu di ay kàddu yooyu Vox Populi nee nañu Aminata Touré weddi na ko nee na waxi cohabitation gi yenn opposant yi di rumandaat nañu ko teg fi suuf ndax mënuta nekk ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñooy majoritaire ci Assemblée nationale lise ko nañu tey mu neex ni coalition bu ci nekk yaa ngi fëgg sab di yëkkati sa loxo ne yaa gàddu ndam li Walf Quotidien bind ci xët njëkk ne waaye yeewi wàllu nee nañu am nañu 83 députés ne ko waaye Aminata bi ndax kii di Khalifa Ababacar Sall ak Mamadou Lamine Thiam ñoo ngi dànkaafu ñi ñu ko séqal l'info nañu seenum xel dafa tàmbaleete ci ne seen ndam li ñu am ci élection législative yi waa kër Macky Sall yi dañu cee bëgg a teg loxo confisqué ko yéene bi nañu lii moo tax intercoalition Yewwi Wallu di dànkaafu gaañ yi di leen wax ne bu ñu bëggee dugal benn nduxum ci résultat yi tukkee ci urne yi dinañu gis biddiw ba cëkk libération bind ne tête de a dafa yombali duma nañu gëm ne cohabitation dafay am assemblée nationale fala force te jaru ñu ci am kersa ndax du gàcce Walf Quotidien nañu Mimi Touré mi génnoon ay siifaram wanaasu na ay siifaram Direct News nañu intercoalition Yewwi Wallu mayu ñu leen dara ginnaaw génnuk Aminata Touré gi mu génn keroog ñoom it ñoo ngi riposte Soleil national jàpp ne suspense di xiini miina gi ñu newoon ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak intercoalition pouvoir bi ak opposition bi waa wàllu yeewi nee nañu am nañu 83 députés assemblée nationale Aminata Touré ne mënut nekk ndax ñoom ba di assemblée nationale moom ñooy boroom waa wàllu ñoom yéenekaay bi nee nañu ñoo ngi sàkku ci seenu ñooñ mu di seeni militant ñu mobilisé waa l'observateur xëy nañu mobilisé wu fa bu dem seeti avocat bii di Robert Bourgi doo nit kuy càmbar politique gu réewum Sénégal ngir waxtaan ak moom ci ne élection législative yi keroog yi tëddee ci réew mi Robert Bourgi nee na leen li mu gis te jàpp ko te di ko digal Macky Sall moo di li ko war mooy mu woote póot mu mag xool li mu tilimle mu sàkk ci pexe le mandat di ñu baaxee li mu jàpp ne mooy feebar yi dal président Macky Sall ba tax mu dëkkee mbetteel ci élection fi jot jaar benn moo di coowal góor jigéen yi lëmbi réew mi ñaareel bi di waxi troisième mandat yi mu leeralagul ñetteel ba di yu bari yi xew ci réew mi te ñu gis ne injustice da ca bokk wàll mandat jàpp na ne yii mooy yi sànk Macky Sall Macky Sall ak fa mu sànku libération nee nañu ca benn dëkk ñaari gaar di ca kees fa la raay ba téene ndax ca foofee ña fa nekkal Macky Sall Macky wékkoon ci ñoom yaakaar ñoom ñëpp la ñu fa duma wulli leen fa ba mëqal leen poussière mu di Idrissa Seck di Yankhoba Diattara di docteur Augustin Tine di Pape Siré Dia ak Habib Niang Vox Populi nañu du ca kees rek fa la làmbaay ñaawe ndax ci Médina ca Parcelles Assainies Kër Massar kees Guédiawaye Louga commune Kolda commune Ziguinchor ak Kaolack commune ay localité la ñu yoo xam ne ay kàngami Benno Bokk Yaakaar ñoo fa nekk waaye dara la ñu fa ca diwaanu Kaolack donte waa Benno Bokk Yaakaar dañoo nërmeelu ca commune ba waaye ca département ba moom ndam lu rëy la fa amee li leen ko may yéenekaay bi nañu bokk na ci liggéey bu rëy ba fa sëti Cheikh Ibrahima Niass liggéey ci élection législative yi mu di mouvement force vive de Médina Baye journal bi nañu démb la comité directeur bu mouvement bi doon conférence de presse doon leeral fa ñu jaar ba gañal waa Benno Bokk l'observateur waxtaane wàllu tàggat yaram yëral xët mu mujj journal bi ndam li yéenekaay bi nee nañu tournoi bu bees la boo xam ne suba ci àllarba ji lay tàmbali lancement bi démb la woon mu di xew-xewu football boo xam ne li ko tax a jóg bokk na ci joxaat nawetaan bi beneenub xar kanam bu gën a jekk Malal Junior Diagne mi organisateur bi mi ngi leeral ci biir journal record li tax a jóg tournoi ndam li ni tournoi bi tëddee ak la ñu ciy séentu